at yi yëpp ñu ngi ciy ànd ak yéen di ci waxtaane taxawaay maam Cheikh Ibrahima Fall di waxtaane jëfam di jël ay bindit ci ab dundam di nga xam ne dund bu yaatu la dund bu barkeel la dund la boo xam ne ku ca jàngat jël ci ay tomb borom la mën dund bu sell dund bu kon noo ngi jaajëfal mbooleem sëtam yi nga xam ne ñooy taxawee liggéey bu am solo bi sëriñ Xaadim Fall ak sëriñ Talla ñoo leen di nuyu di leen ziar ndax ñoom la ñuy jox daal jamono mu nekk kon noo ngi jaarale itam ak ziar ak i ci mbokk yi nga xam ne ñoom saxal liggéey bi jotaay bii dafay jotaay bu am solo bu dañoo ñëw daje fekk te kenn yëkkatiwul kàddoom sax ku gis jataay bi image bi ñu joxe rek dana lu la tekkal dana am it lu rëy xam ne dana la ko won dana wone ak bennoo dana wone ak jàppoo dana wone ak takkatoo te loolu day nekk image boo xam ne image bu rafet rafet la rawatina yi bis bii nga xam ne day bis boo xam ne mooy bisu al fawzu bi rida bis boo xam ne bisu ngërëm la ngërëm ngërëmul yàlla di ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ngërëmul Cheikhul Khadim ndax Serigne Touba du gërëm mukk ku yàlla gërëmut ndax ku muy gërëm rek day jot ndigal ci boromam mu yëgal ko ne ko gërëm naa diw moo ko mu gërëm ko bari na lettre yoo xam ne bu ko bindee mag ñi di leen wax gërëm naa leen wala mu di leen fàggul fàggul dara bari na lu koy wax rek léeg-léeg mu wax ci kenn fala tashuk fi kawni hada min indillahi wa rasuli wa minni bari na lu ko sëñ bi bari na lu muy wax léeg-léeg mu wax nit wax ju rëy ci lettre sant la ca gërëm la ca wax ca say daraja waaye dañuy teg ne bu sikk sàkkee na nag lii ca yàlla la bàyyi ko jaar ci rasulullahi ñëw ci mën a jotal kon ngërëmul Cheikh Ibrahima Fall mooy ngërëmul yàlla di ngërëmul yonent bi di ngërëmul Sëriñ Tuubaa mu mel ni jamono dafa laaj ni sunu kilifa gi jëkk a wax léegi doon waxee jamono moo laaj jàngale Cheikh Ibrahima Fall ndax lu kenn xamut ba di ko wut ku ko xam ba wut ko ba am ko koo ko amatu jàng am ci kenn xamu ko Cheikh Ibrahima Fall moo ko xam ba mu ko xamee ba noppi nga xam ne da ko wut ba am ko kon ku bëgg loola jërul ngay wëri da ngay dem seeti te ka ko ka ko wut ba am ko nga seet yoon ba mu jaaroon nga jëm teg doon ko ni mënuloo ko am it mënuloo ko jotit am da am ca la mu amoon man nga jaarale sa maas man ngeen di jiitoo te ni yonent bi sallallahu alayhi wa mel nga xam ne boo koy jàngale faaw nga tudd ci biir ñi koy jàngale ay saxaaba mënuloo jàngale rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam te jàngale woo ay saxaaba ndax bi mu ñëwee indi lislaam nit ñi dañ ko wooloo ña ko wuy si ñoo fisaare ak wootam lu ca ci ab ci joxe sa alal أسبكن دفن منه وارد من سيدي علل أتسيدي بكن دخل يوم من سلام سلام كان نقول أن سيدي أكيرم لا تبين صحابي كانوا نشفوك يوهم دنيا نتودي العشر المباشر بالجنة لأنهم يدخلون من الأجنة كانوا نتنيرت ني الخلفاء الأربعة di ñeenti xalifa yonent noonu mu mel nag Seydina Abubakar Asidiya ñëpp ko wóotu te jotewul ak Seydina Ousmane ci ak tabam ak finance jotewul ak Seydina Amar ci ak dëggoo ci kàddale dëgg ak kan doxul diggante Ali ci xam-xam kenn ku nekk ak wér-gu-wér ci sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne la Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee ba woote dafa am lu mu fekk jamono mooy jàng ak jàngale bu njëkk li ñuy xamee ab sëriñ mooy yor daara di jàngale ñu koy tuddee ay sëriñ ku taxalu bu boobaa it lan lay am ay àllarba ak i dibéer loolu rek la sëriñ bi mos a ñëw yàlla waaye ak bu fekkee ne am na ñu ko amoon Eh, néew la waaye it bu ak njëbbal amee it def ci nit lu mel ni li Sëñ Tuubaa def ci nga jébbalu ci moom loolu moom amutoon Sëñ Tuubaa bu ñëwee ci yoon la jaar njël bennoo jàngal jàngale dàqa jàngale ñëpp ndax ak dàqa jàngaleem da ciy feeñ bari na mag ñoo xam ne topp nañ ko te ni ko toppee mooy jàngale bu leen jàngal benn bind rek mu mu mu tëj seen bopp Cheikh Massamba Diouf Sam benn bay rek la ko suñ tubaab tëralal mënatut a jàng dara mu fàtte la mu xamal lépp ba mujj muy saytu kii ma jàngal bay bi te ba ma ko jàngalee ba léegi mënatuma dara faaw ma wëri te lañ ko waxee doomi si moom sëñ la ma nga mu door a dem paataar moom sëñ Diouf Sam taxaw fa ak sëñ dana ñëwee Mbàkke Kajoor dañ ca xewee loolu kon bu dee xam-xam àndaale xam-xam yi Sëñ Tuubaa àndaale woon euh, kenn mënatu ko nag kenn xamul lu mu toll ndax lu tax Cheikh Ibrahima Diouf al yàlla moo jàngal Sëñ Tuubaa xam-xam boo xam ne kenn du ko gis tax képp ku sukk di jàng Sëñ Tuubaa la rob ci mbooleem borom xam-xam yi allamahu rabbul wara bila tahallumin yura fa faaqa kulla man xala inda jamihi ulama kon yàllaa tax mu raw kon bu dee ci xam-xam mboolem borom borom sëriñ si ñi tuddee sëriñ xamal nañ seen bopp ne bu dee ci lef moom bu jëm ci xam أن زهده وعلمه وجوده وبعده أحيا قبوله فقط فاما mboolem mooy xellu ya ak ña nga xam ne ñoo di ay kàngam xam-xamam aku dëddu àddinaam aku ragal yàlla weeram loolu de waaye noonu la day mel ni mooy diggante sëñ ak mu jamono teeloon ak li jati waaye sëñ bi dafa indi loo xam ne kenn mësu ko indi moom rek moo ko mos te bi mu ko indee bu fekkoon ne da da da koy yamale te nit yi sëriñ si nekkee woon indee kon dee su ko xam waaye déclaration bu toll nii rek mën a xëy wax ne képp ku ab njàng indi woon doxal seeti sëriñ bëgg li ma bëgg nag nga ñëw ñu ne loolu lu lu mat a jàngal mooy doon. wane na ne manes naa jàng ba jeexal téere yi ba war nu lef waaye taxul a jot ci li ma yor nag li ma yor nag ku ci bëgg a jot day am koo jaar moo tax ba muy def déclaration ci Mbàkke Kajoor waxoon euh, képp koo xam ne ndax jot naa ndigal ci tërbiya ci lan lay tërbiya bil himma bàyyi nag toogal sama bopp di jàngale doon ko ne joxe na ndigal ñu sampay daara yeneen di ci jàng ak wut ñoo xam ne dina cee jàngale ku mel ni sëñ Dame Abdourahmane Lo ku mel ni Mam Thierno ku mel ni sëñ Mbacke Bousso waaye li mu andi nag di ngoor bi mu ngoor andaale te muy loo xam ne ku jàng di ca jariñu ku jàng di ca jariñu ndax sëñ Touba sëñ Bay Jaxate Ram yàlla da ko wax ne ko fal nga ku jëngu fal ku liggéey fal ku la topp sanga bi bam bu fekkoon ne ku jëngu doo jëriñu sëñ Tuubaa rek day xat parce que sëñ bi defar na ñu jàng bu fekkee ne si ñàkk defar leen ci defar ñoo xam ne it jàngulu fal na ku toppul ku ko toppul it man ko jàngee ci ñu bari ñu mel ni buur si ko ma doppee wala ñeneen ak waaye bi mu wootee li mu wootee yàlla bu namee dara ida arada la amran hayya lahu asbab yàlla bu namee mbir da koy wutal ay sabab yàlla lu mu bëgg a def ay sabab yooyu dafa bokk ci sabab li tax nu mën a jëriñoo Sëriñ Tuuba da ca bokk ci Cheikh Ibrahima ay yu bari la ca la bokk tukki bi tukki ca la bokk defare gi muy defare ca la bokk waaye que loola bu dee lu mu jàll ci la ka ca joxañ ban mën jariñoo jëriñoo loola dajale yëpp mooy Cheikh Ibrahima moo tax yoonu murid mu toll ni mu réyee ni mu baree kàngam ni mu baree ñu jëkk a jébbulu ni mu baree ñu te taxul ñu wax kenn baab ñoom baabul muridi loolu rek bu ñu ko doon jàngat ci ak dund doy na sëkk di ko waxtaane te benn borom xam-xam mënta am xalima yu ko bind mënta am nit daal yu ko bind saa yu bind lan mooy baabul muridi xam ngeen ne suñ tubaab bi ñëwee li mel ni mooy ak murid ak mooy lan ku nam yàlla طرق صوفيه فيك يب تاريخ بوتنك ذكرت لنا ذكرت لنا تاريخ بابا ولا برام ذكرت لك بابا لقبلة قادمي شاشدي تيجاني غكاشي رفاعي مالك طرق صوفيه يب لا لما سنتو بعد الدنيا لما دي موي لان موي ارموني ما يكون نمو يالا كون نمو يالا koo xam ne bëgg-bëggam bépp mooy yàlla ndax baatu murid mi ngi jóge ci al iradatu te mooy ak tajawudu min shay'in ma bi shay'in ma mooy rikki ko ci lépp dara jëm ci dara am benn yitte muy yàlla moo tax bi Sëñ Tuubaa wootee loola ña doon tudd borom yi xam-xam ci jamono boobee da caa am ñu waxoon ne ñun mënuñoo xam yegg ci yàlla bu jaarewul ci njàng loolu moo waral ñenn ca mbooloo ma wane ginnaaw te it loola sañes na ko ndax li tax ñu sañ ko mooy wàllu tërbiye gi sëñ Tuubaa andi ci Afrique de l'Ouest muy sawu jant gi sëñ Tuubaa moo ko fi xebal loola moo tax bi mu wootee loola am te ñu ne ñun daal mënuñoo xam yegg ci yàlla boo xam ne day jaar ci lenn lu dul jàng ak gàntal Cheikh Ibrahima Fall nag ba mu ñëwee mu wane ne loola mën naa nekk ginnaaw ba mu ci amee jagleeg boromam jagleeg boromam mooy euh, yàlla dana may ay cër dana jaay ay cër dana dénkaane ay cër dana may nit lu ko sopp comme ni mu def sallallahu alayhi wa sallam da ko may yonent bi magul ci xale bi yonent bi jàngul yonent bi saa salaam du benn xeex wala jënn jëf yoo xam ne ca la ko boromam tànn lu may yàlla daf ko seet ci kattanam na ko yaa tax ma bind ñëpp yaa ma lu war nangu ak topp kon loolu yàlla may ay daraja dana ko jaay jaay gi mooy sëñ Tuubaa da ko jënd. lu tax mooy li am lépp ci ay natt lu ko amee ndax moo waxal boppam ne nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla al-arar ridan batil bu leen jàpp ne ngërëmul yàlla yii daje ci man ak yii daje ci man lépp dama ko amee ci noflaay coonaa jiitu ma doon tàgge kon dañ ko jaay jaay boobu ñu ko ko jaay mu jënd ko ba mu jaar loola moo tax li fi moom moom Sëriñ Tuubaa am na te lu muy maye am na ci lu muy dénkaane waaye am na ci lu muy jaay jënd ko gee ko Cheikh Ibrahima jënd nag da koo jële ci njëgu am yitte ak ko farlu yitte mooy wommat nit ndax fekk na fi borom yi xam-xam fekk fi ay jëmm waaye ba ko boromam joxeñee xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gisal boppam serigne touba xel men توا touba liggeyal رسول الله rasulullah min ilahi kawni khadimahu abdullah فعلى الذي طلب كوني الخديم له سلامة ذي البرية الخديم كل شيء لك من غيره يونت لك سقو نجم جيدا نما كو كيسي تي جمبار نما كو كيسي تي بسير نما كو كيسي تي بخين وما سوى يوم تبكي سبير سما بي لغير moo tax Sëriñ Tuubaa kon yonent bi moo sàkku ci yàlla ma liggéeyal waaye Cheikh Ibra Fall la yàlla ko tànnal boppam na ko doxal jox sa bopp Sëriñ Tuubaa ba noppi di liggéeyal tey ñaari diggante yàlla moo waxoon Sëriñ Tuubaa doxal liggéey Rasulullah te tànn na la yaqulu lisaanul xaali lii kun xadiima man xamaaka anil akdaari bi day sabab bi promotion bi amee rek yonent bi sàkk ko yàlla dana amul mën ngaa jóg dem liggéeyi waaye Cheikh Ibra Fall nag yàlla ko wax ne ko demal jox sa bopp Serigne Touba te liggéey ko xam ne cay seetal ku bind loola is qaala rabbuka aslim umtan murtaxiya ila alxadimi bila kibrin wala nazar kon yàlla wax Cheikh Ibra Fall doxal kee la ma dëxan ci moom du ko wax dama joxe ci sax ci ahmadou bamba mu ñëw jamono du ko wax te maqaamam fadlu kul man naa la ko déy rek yow ibra fall nga dem wax ko moo tax mu ne ko pëkk pëkk na ko doxal dem moo tax sëñ Moulay Bousso da ne ba ko suñ ba sëñ Moulay Bousso mu sëñ Bakar Bousso da ne Cheikh Ibra Fall qad baya shay qidaman khadiman fatima يبغي رداه وعنه يحمل الكرفة قد بايع الشيء خدما خادما bu yàgg jiital ko di ko liggéeyal di ko xellu waaye lan la bëggoon lan moo doon liy teg Cheikh Ibrahima Fall yàggu nga yuri baaxu mooy sàpp ngërëmu Sëñ Tuubaa ndax yàllaa ko wax na ko jamono duutuma kenn duutu tàllal loxoom ma teg Ahmadu mee rek lay jox muy séddale bul sàppoo ci ngërëmul kenn ku moom. anta alladi sirta lil aqwaali waasitatan tuxti ljamia wa rabbul arsi yuxtiik kenn amatul maqaamam dikk yàlla mu jox la sëñ Tuubaa rek la yàlla jox mu sedd ndax mooy xalifatu rabbul arsi fil xalqi nuuruhu bihi yarhamu rahmaanu man kaana rahiiman yàlla ne ko man maa yow yaa may wuutu ci bindee ci ku ma nar a yërëmati ci yow laa koy jaare ko Ibra Fall sama yërmande jee ca kaw suuf demal won ko nit ñi nu ñu ko mën a jariñ ba mu ñëwee ku ko sàkkal solution suñu borom نكو واتنا سجامو يالا يو ابرفال واتنا سجامو يالا دافكو موي خدمة سبن بيس موكو جبل بن بيس موكو جبل راو نا جوني جيفي غاي سي توك قال خدمته عابدا لله جل وعلا فالمقتدي بك لم يلام في سفر يو سي رفال كان خدمته لكي نسجم عابدا نجم جامو يالا كون سي خدمه موي سدي عم يلا خدمة مو عبادته عبادته مو خدمة كون سا خدمة موي سا عبادة فالمقتدي بك خم لك ويا من تشيغ مفاد ما تعطى فكيرا طول فضائي وقت فالمقتدي بك كتب رأينا يو سيارة فال تك ستان بين ما تك دور كوي كابل سورة دنوج كون كون اسمه يو روي باي رك زيكي نيجي نمي أبي ساشوا بي أم كشيغ مفاد wax naa ne Cheikh Fall ay coono tëkkalu ko garaatu yaa feral ay daanu ko tëkkalu ko garaatu yaa feral ña dàq julli daan fanaan nit guddi di ko naafila di woor ay bëccëg ñoom suñu borom jox benn garaat na leen na ko takkal ki ñu wékk ko Cheikh Fall na ko yaay ki وقيل أسمى بسان مات a أهل البداية في صوم وفي سهر gaa yi nga xam ne dina dëkkoo woor dëkkoo koor ak naafile guddi di ko taxawee ba suñ borom yëkkatee a garab la bii shaar daal bii mandarga daal damaa bëgg ngeen seet ci tool bi ku fu xam ngeen ràngal ko néew ñu nañ ko ko ràngal diw Seex Ibra Faal lañ ko ràngal na ko yow yaay ki ko yeyoo kon kat ko kon jullikat yeeg woorkat yi ñoo na ko yaa ne te kat léegi bu nekkee te kanam na na Cheikh Ibra Fall di doon sëriñu ay donga inna shuyuux wa atbaa shuyuuxi maa ñooy say jaraaf nga di seet yaaram bi nam xaal sëriñ boo fi gisee ki donga ñooy say donga yaay général borom arme moo ne ñu ko wax ci keppaaru Sëriñ Tuubaa lañ nekkoon ba noppi nag na ko mboolem sëriñ si ak dongay sëriñ si ñoo ne ci sa ginnaaw yaay chef yaay jiitu yaay général yaay yor arme bi arme bi nga yor nag bu ñu formé benn arme gouvernementale ki ñuy jël na ko nommé nañ la da nekk général bi mooy joxe ordre bi ñuy màccloo ak fi ñuy jaar muy tëral leen ay stratégie yoo xam ne bu geen amee ñu mën a am ndax yooyee la Cheikhul Fall yu andi te kenn xamu ko woon ba di ko andi moom moo yor bagage yi ñi nekk ay gëb yi nag gëb yi mooy ñi door a dugg te ma tëggun ay lieutenant ma tëggun ay ay général mu jàngal leen yoon woowu ku ñuy jaar indi ñett ci dëkk bi xidmati aw bi xubbi aw hadiya bi xidmati mooy xidma muy liggéey li ngay li nga gis bëgg ko da la la ko may moo tudd xidma la la koy soññi ba tax nga di ko liggéey mooy mahabba lay tax na mën caa jariñu mooy hadiya mu teg ñetti asas wax la xidma lan mooy xidma ak ban wàccuwaay la ndax sëñ Tuubaa dégg fu mu wax ci ku koy liggéeyal lenn lu mooy ñaari bayta ngi nii doy na ci nit ki jóg di liggéeyal sëñ Tuubaa waqt di xawaarij lazina daamu fi xidmati wa hablahum maala fajal yitte yi ñu jóg dina liggéeyal te may leen liñ bëgg na kon aajo ju faju ak am li nga bëgg moom lañ bëgg ba ca topp mooy benn murit boo séen wala benn jullit boo séen ginnaaw bakkanam lam gën a bëgg mooy àjjana mu ne inna lazina saara'u li xidmati fa lahumu diyaar wa sajjana ñu dox ci jëm di ma liggéeyal buñ faatoo am nañ ay njëlmi te di gàdde kon Cheikh Ibrahima xidma la ni teg ko féete woo xidma boobu mahabba muy cofeel ñu ne Cheikh Mamadou Moustapha mi njëkk a ne xalifa Cheikh Amadou Bamba waxoon na ne laysat al iradatu bi mujarradati al kalami fa hasb bal maaha qara'in tadullu ala sihatiha ala wa hiya as-sidq fi al mahabba Cheikh Moustapha nee na ak ak murid du murid laa murid laa képp mu doy dafa am rapport yu koy dëgëral da ca jiitu mooy ak tafeet mahabba mu ne coxéel ko de mooy mu am mat euh, taalibe bi ngir lan sant mu mat maxaba nga xool coxéel diggante bëgg Serigne Touba bëgg lépp Serigne Touba warmal Serigne Touba warmal lépp Serigne Touba ni mu warmaale Serigne Touba la warmaale bokk Serigne Touba yi noonu la bëggee mboolem bokk Serigne Touba yi. taalibe la bëggee woon la leen Serigne Touba fonkee woon naa ñëw njëriñ bi indi Serigne Touba yi daaw lan la Serigne Touba def dafa yëkkatee nit ñi jox ko Serigne Mbacke bu Sorom na ko am yaay mbokkam léegi kon gisal ni mu mel xoolal digganteem ak sëñ Abdou Rahmane Lo xoolal digganteem ak Maam Mor Jaara borom sàmm mi magi Cheikh Ahmadou Bamba xoolal digganteem ak Maam Thierno Birahim dii naa suñ tubaab nekk ci géej gi maam Cheikh Ibrahima lu mu bàyyi daf koy ñaari cër jox benn bi maam Thierno ngir njabootu sëñ tubaab gi jox benn bi maam Mor Jaara borom sàmm ndax sëñ tubaab ko dénkoon moo ko waxoon ne ko na nga jàppale borom sàmm yi te taxawu ko ndax day góor suy dundam ñaxam ah léegi boo si toll imaam moo jaar di nafila téeméeri rakka guddi gu jot téeméeri rakka lay nafila keroog bi mu génnee àdduna sëñ Mbàkke Bousso ne ginnaaw Rasuul lay ku tedd ni borom sam tëdd toujours ku mel ni sëñ Tuubaa di leen liggéey ji bàttale ko ko na ko nan ko taxaw ndax day góor suy law ñaxam kon kan mooy Cheikh Ibrahima ci boobu jàmm du yàlla bi mu toll te sëñ Baara sëñ Baara moom sëñ Tuubaa nee na Maam Mor Jaara borom sax rek yabiitu yusalli summa yusbihu saa'iman wa maa juuduhu illaa ka amtaari waabili maanaam guddi di nafile di woor bëccëg yi nee na ak tabam nag wutewul ak aw waame wu sotti sëñ Tuba wax loolu borom ba Cheikh Ibrahima tuddee ko lool kon nga gisaat boobu rapport sëñ Ndaw Abdourahmane loolu waxoon nee na yoon wi bu kenn jébbalu doon te Cheikh Ibrahima jébbalu doon ne kon ñooñu xoolal kii nafila kaamil alxuraan mu def ko ñaari rakka kaamil alxuraan ndax sëñ Ndaw Abdourahmane loolu def ñaari rakka xoolal diggante ak Cheikh Moudou Cheikh Ibra Fall nga xool diggante mag Cheikh Madou Bé mag mag yi Serigne Touba fenn ku ci nekk boo demee noo fay fekkee Cheikh Ibra mu am seen sin ci diggante mag waaye moom daa ko jàngale lu tax mooy nit mi ngi julli ak a woor ba noppi ci julli daa koor mënu jàm dara lu koy waral mooy gis jàngal aray tëri di kasu bi di kasali tëri si doon yatim wala yaxuddu ala taami miskin fa waylun lil musallin allasina hum salatihim sahun moo tax sëñ yaakaar naa sëñ Modou sëñ Mamadou Njaay ñaay la Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ko nit dana dund ba am juróom-ñaar fukk ak juróom du may yàlla du faat waxtu te du am yoolu ngeen di julli juróom na ko man nag Ibrahima Fall may naa la yoolu julli juróom na ko yëngu ci rek korite ak tabaski ak tamxarit ak màggalu sëñ Bàmba gii sax njaboot bu ci waay defati am te yoon la yoonu juróomi julli juróom na ko nag te julli juróom nag nit dana dund juróom-ñaar fukk ak juróom te du am genn gu noonu yow doo julli doo woor ba noppi am sañ-sañu maye yow julli di ko da ko war mooy Serigne Touba da koo joxe nit ñi Serigne Touba dafa jàngale Cheikh Ibrahima gis nga fi ne wax dëgg Serigne Touba daa waxoon ne bëgg leen Ibra Fall ngir li ma bëgg baa li ma ko bëgg baa ngeen bëgg Ibra Fall ngir kon bëgg Cheikh Ibrahima Fall mooy li ma ta ñàkk benn da nga koy bëgg ngir moom bëgg gi bëgg Sëñ Tuubaa baa nga bëgg ko yow ngir li ko Sëñ Tuubaa bëgg te kat law kaana qawluka saadiqan la ta'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu koo bëgg la bëgg ngay bëgg Sëñ Tuubaa nee na bëgg naa Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall bëgg na ma ku ma bëgg a bëgg la nga bëgg kon moo tax bi ma nee xit moom lu mu ca teg mooy mahabba awfadiyaat yi addi Cheikh Ibrahima Fall ci kër Sëñ Tuubaa kenn mënu ko lim di joxe addiye ba sa bàmmeel di joxe addiye ci Cheikh Fall gis addiye damay wax ne murit bu du joxe addiye ab sàcc la moo tax addiye du corruption ku ko wax buum la ku noppee joxe du sàcc amaana ku ñu naan muridun saadiqun te fekk kooku muy muridun saadiqun day bay di lekk du joxe hidaaya kooku mooy murid buy sàcc wóor na gaaya loolu la suñu sakkoon Cheikh Rafal di yarwaan di di liggéey di jox. kon hadiya la ñu andi hadiya te hadiya ak lu muy jural nit mooy barkeel ndolleen. Seexul Fall kat kon da ngeen xam ne kat lan tanaalul birra jooju yëpp su borom di wax hatta tunfiqu mimmaa tuhibbuuna bu leen di denc day bëgg ci li seen yor jox leen ko li ngeen yor mu defar la ko lu ko gën jox leen moo tax bu leen ci dara waaye dégg sëñ Tuubaa nag dégg koo xam ne moo tax mu jàngal nu yoonu nit ci di jaar ngir mën a xam yoonu Cheikh Ibrahima Fall ba ca jaay waaye ndax Cheikh Ibrahima Fall loolu la yem déedéet. daca boole woon ñaar yii man sabara wa ta'anna naala maa tamanna ku muñ te def dal am li ngay wut Cheikh Alfan ko amay li am xàmmeewuloon ku koy tagg xàmmeewul ku koy kon man sabara wa ta'anna naala maa tamanna mooy am na li bëgg mooy na ngeen xam ne Touba dibéer la la la fatu bu ñu jullee gee dima altine gisaatuñ ko ba ni sëñ bi ñibbisee Touba ca gaawu ca gaawu wax na soxna Sëriñ Penda Fall nañ ma wool Sëriñ Penda Fall Sëriñ Cheikh Mbacke moom la ko nekk nii moom na Sëriñ Cheikh yow ko ca gaawu ba benn baat la ko si jox Ibrahima Fall gërëm naa la gaaw Ibrahima Fall gërëm naa gaaw di bee surtout nag ñu liggéey fatu kenn gisal kon muñ na la am la war a am kon man sabara wa ta'anna naa la maata mën naa mën naa muñ xas yi jéggi gàllankoor yi ak baara ba am la ñu yut mooy ñaata gërëm na ko sëñ Tuubaa gërëm kenn xamul mu toll waaye bi sëñ bi waajee bay jege boromam nga xam ne dara desatul ci moom lu may yegg ci yàlla yóbbal bi mu bàyyee Cheikh Ibrahima Fall mooy Ibrahima waaye mu taraseel mu nag yoon woowu kenn adal ala xayrin fa lahu mislu ajri faa'ili ku baax ku la ca roy lu mu am nga am ca lu toll la ca am ku tegtale lu baax kan moo tegtale sukk xoolal juróom yi Sëñ Tuubaa jàng rek ba ca jëkk mooy bàyyi ngi sa Cheikh Rafal lépp lu mu jëf yàlla tax bi ñuy waxee fekk buur muy rëy iblis fu cheikh ibra fall iblis du fa jaar iblis réew ko yàqal te Nasi ibra fall contre rek maanaam iblis def mau isuk. iblis lu ko lu ko désolé lu ko gàcceel sa ko suñu borom laajoon lii ma lam tas tas tas jub istakbara ku tamit la ali ana xayru min xulqa yow loolu te si jot da ngay réy réyu wala naa bokk ci kawe mu ne maa ko gëm cheikh ibra fall ram bàyyiwu santam bàyyi dëkkam bàyyi bokkam bàyyi lépp lu mu am jox sëñ bamba di liggéeyal sëñ bamba wàgg sëñ bamba bu dee baax ak defal jikko kenn lu ñu waaye ba ca topp mooy laa biir nasiha moo leen ku jamonoon teg Cheikh Rafal bopp ak Rafal ba nga xam xawlan aw fi'lan wala muy yëngu moo xam ni zahirement wala batinement waaye mënul ñàkk Cheikh Ibrahima bi mu leen xabaar ba ca topp mooy sikki sàkk Cheikh Ibrahima Fall gëm bu dëgër lay dolli ci muñ day tax ab muñ gëm bañ deng deng waaye ba ca topp mooy génne la ca lu amul njëriñ dina yóbbu te la am njëriñ loola rek la doon nekk mooy jëfal Serigne Touba loo xam ne. ñëpp si Touba te liñ bëggoon am na ndax liñ bëggoon am na mooy dañuy wax ndagul wut am ndagul wut am. Cheikh Ibra Fall daal fexe na ba banque bii Serigne Touba toog ko moom mooy ñëpp a toog ci ko banque ci kaw. ñëpp a nekk ci suuf it di déglu leen ndigalam te kan moo indi loolu mooy Cheikh Ibra ay jëfe ba ko wane ay meloon ba ko jëfe te it nag jëfu Cheikh Ibra Fall ba tey weddikuwul weddikuwul xoolal ba ba ci ngoonu tey jii rek la fi moo ne moo xaw ma ku koy tuddoo te doxee woo ci waaye ñu ngi tuddee maam Cheikh Ibra Fall dëgg dëgg daal dëgg dëgg dëgg dëgg la seen Cheikh Ibra Fall bàyyi woon kóotuñu ko maanaam waxuñu ca dara mooy jëfee ndigal tere sa kilifa loo am joxe loo ñàkk muñ loolu muy Baay Faal ba léegi ci fonk kilifa ak xam-xam mooy sa kilifa ak cër ba koy dox noonu mu noonu la meloon ci meloo yoo xam ne même ñi bokkaloon jamono te ñu nekkoon ay nasaraan yi noonu la ñuy reconnaître woon Cheikh ci dimension ci personnalité ci capacité ci yoo xam ne yu bëree bëri la loolu mayoon na ko yu bëri mu mën koo doxale ci digganteem ak ñi fi nekkoon waaye lu bëri mu mën koo doxale ci digganteem ak jamono ci installation bi nga xam ne Serigne Loupane installé na ko kaddu na installation boobu da daan wax ne Serigne Loupane daan wax ne Touba yoonam wii bu doon lamb la bu sampee ndëndam mii kenn du ko tëj ñu ka faal lu tax mu ne wet goo aw suq daaneel la Cheikh Fall nee na yoonu Sëñ Touba wii bu doon lamb Sëñ Touba ma sampi ndëndam kenn du noonu ko de mu ne wet goo aw suq daaneel la da ngay ñuy liggéey di la jox di xaar sa ndigal loo wax lu def loo tere lu bàyyi lu waay am gën koo bëgg yéene la ko ngir yëg la ko Cheikh Ibra Fall def léegi nag bu jamono yooyu itam du ñàkk ay ruur yuy yuy ak luy nur luy yàq lu waaye mbirum Cheikh Ibra Fall moom kenn mënu ci dara la na ko kenn mënulul dara ba muy jamono la ko mën a noonu te yoonu nit boo déggee nuyu attaqué yoon bi lan la ñuy attaqué mooy tali mooy tali tali boobu nag moom la maam Cheikh Ibrahima Fall bañ murit yu benn yoon bañ ñu jiitu yu benn yoon wax naa la léegi na la di liggéeyal si Bamba ba sa Bamba di ko liggéey loolu di joxe aide yi jafe na dafa am bis may waxtaanee seen jiiri Fall seen jiiri Diop maa ngi yëngu seen jiiri Diop ci waa Kër mu ne dafa am bis Serigne Saliou di nekk nii daaw beneen bi dafa toog ku ne Sëñ Abdou Lahad Si te Koungheul mu ne jotaay boo xam ne Sëñ Saliou ma nekkoon ak ñenn ci njabootu Sëñ Touba bi ñuy nekk li ñu jëm ci Cheikh Ibrahima Fall te Serigne Moustapha Fall Ndar mii nekk la ma ne Cheikh Ibrahima Fall kat. Serigne Saliou daawul tudd turam te rongoñam sottikul baa ñu tudd turam ci moom te rongoñam sottikul mu ne du ne da koo atti tudde waaye dañu koo gën a xam ndax moo lëpp jox nee na am na bis donga yi ni ci biir kër sëñ Moustapha la ko am na bis donga yi ni ci biir kër te ba toggunoo dem ca daara ñuy bind seen i tur kenn ku ne ñu mooy diw doomi diw ak diw mooy waaye am na ci dong boo xam ne dañ ko tuddee Cheikh Ibra Fall waaye bu sëñ seen tiimee kayit bi ñu bind turi turi dongo yi sëñ Moustapha nee na da ko bi mu koy xool ba ak si turu Ibrahima Fall bi nee na dafa jël kol gi muur ko ci bëgg yi di sotti ay xeetu ndax yëg gi mu yëg Cheikh Ibrahima Fall. am na bisit muy nettali xisa Cheikh Moussa Alioune Guèye moom sëñ Jabi sëñ Moussa Alioune Guèye Serigne Touba da ko woo jox ko mbind di ko ko sottiloo na ko na ko sotti te bu ko xool. dana soppi nit ñi te du ko xool sotti bi nit ñi ba mu koy delloo si di ko it sëñ Tuubaa nag fekk fa maam Cheikh Ibrahima ba muy delloo si nit ñi fekk fa maam Cheikh Ibrahima sëñ Moussa Alima Gueye bi mu jébbalee mbind mi maam na ko ah Moussa Alima Gueye yow yéeme nga ana nit lu muy sottee mbind mu gisut ana nit am ñoo fi jotaay bi ci kanam sëñ Saliou daan wax ne sëñ Moussa Alioune Guèye Guèye daa yéeme rek nee na sëñ Saliou Ndorong Cheikh Ibrahima Fall la ki fekkiwu ba ni joxe bindi xam ne joxe nañ bind ku ko gën a yéeme daal di ci teg na waaye kooku day pëstéefam sëñ Saliou daal na kooku day pëstéefam mu Cheikh Fall mu ne pëstéefam ne bu toogee woon nii nii ma toogee jëmm ñëw na ko kaay wuyu bu tege bu leen jox it miir bi day xam mu jàll ngir pëstéefam Cheikh Ibrahima Fall pëstéefam la wax kon pëstéef moo ko may Pastef moo ko may lool Pastef booba nag mooy jàngali wi doon nga bu nekk war a gis kon sàmm tourisme bi patrimoine lii da ca bokk ci ba sax bu njaboot gi benn rek bu njaboot gi àndee rek kenn du am foo jaar di bu njaboot gi àndee benn non kenn mu koy jàpp ndax man nga moom liggéey nañ loo xam ne seytaan ne mënut a jaar fenn léegi loolu la ñuy fi may jekkale mooy yàgg nañ ci jamono joo xam ne yàgg jamono joo doom du seetaan ñu tàggale ko bàyyi doom nga bu seetaan ñu tàggale ko sëriñam mag ju seetaan ñu tàggale ko rakkam soxna su seetaan ñu tàggale ko borom këram te ñi lay tàggaleeg ñii ñëpp bañ nga topp leen nga topp leen ñoom ñi lay tàggaleeg ñoom mooy seen bëgg ndax seen bopp rek lañ lay ko bëgg nga balee topp leen bu boobaa ban jóg ak seen i matuwaay jóg ak seen i waajuwaay nanu fexe ba xam ne إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين فأصلحوا له بين أخوين جلد نيب أي بقى بيجن لك أي بقى لك فأصلحوا كون بفك كون نيب أكبر بيجن يالا سكي تتاسكي تانريك كون بلي فأصلحوا mengen yewena sen bok gi ngeen bok sen digal mengen ko yewena yéwénal gi mooy yéwénal gi mooy euh, bu nit ñëwee na la sa mbokk sàngam nangam nga def ko baax la li ma génn ji dafa doon nettali rek benn waaye dafa ñëw bëgg a bëgg naa jaxase sa jiw ñëw na ma waaye yow sa waa ji nag fi la reere bii moo ma jox mbubb mi mu ne Thiel te nee na yàqu doo ma ko fandi woon ma ne ko sëñ diw fi la reere bii moo ma jox mbubb mi nee na réere wu bi joxuma mbubb mi waaye bëgguma mu nekk li ma dara lu tàbbi sama xol di ko yàq daa koy jàppale léew ci ma te xam naa ne bu jógee fi man fa moom la jëm te wax naa ne gars yi toog ci saal yi ku leen moytu doo ànd ak kenn ak jot baaxul ak jot baaxul te gars yi ne ñoom jot ku mën a teg sa baraana ko fee rek man bu ngoonee nga teg salaat wala dara ci as macaron am gànna misere moom métier woowu lu may kër sëñ bi mu dem du fa martoo ñu may ko fa deux mille mu dem feneen lu wax dëgg sa bokk yi bëgguñu la de la ngeen raw a tax de yaa leen jiitu de gaa yi dañoo iñaan de mooy seen morom de gisal ba nga ñëwee keroog jotaay ba nit ñi def bu fa jógee dem feneen xam nga lu muy wax seen diw ni bëgg adduna ay kilifaam ne maag yi magam ñëpp mu ñëw sëñ bi na fa dikk loolu jël loolu bu ko dee def leen faam dama waxoon fii de ba dama ñëwaat wax fii waaye nañu wàññi xoolal borom borom borom tilaawa téere boobu loolu mu jàngale ñu aw lépp ci ñetti nag yooyu nagu xonq wi ak wu ñuul wi ak wu weex gaynde gi dafa ñëw fekk ñu taxaw ñoom ñett ñëpp mu a song wenn nag te xam ne ginnaaw ay bokk lañ te ànd nañ ne àll bi bu songee wii day ragal yëpp sotandoo gaynde gi fexe ba ñot bi nagu xong wi ak nagu weex wi dafa ñot di nagu ñuul wi ak bu xong wi ne leen dama bëggoon waxtaan man laa biire leen àll bi dafa lëndëm te bari yuy fàdd te seen waa ji weexaayam bii ñuulaayam bii foo leen toll ci bëccëg gi nit ñi leen di seen ndax daal ñuul te yam yaa ngi nii weex kii ngi nii xonq ngeen ànd ak moom ba noppi ñuulaayam bii boo leen ko seetaanee ba kuy rey bu ñëwee yéen ñëpp lay boole rey tee ngeen a bàyyi ba fàgg bu ngeen ne ci àll bi yéen ñaar ñaari nag yéen ko waxee dëgg de moo ne sa waay doom ñu laay mënuñoo laq fekk kon lay ngay dégg daal di fàgg nag wu ñuul ñu lekk dem ba ëllëg mu xiifaat ñëw gisaat ñaari nag yi mu indi wu na ko sa waay man xel mu baax laa la bëgg a tegal sa waa ji weexaayam bi dina nga xam ne guddi gi foo leen ko wax nit ñaa ngi leen di seet te yow ginnaaw dee su la gis bëccëg weexoo dee su la gis guddi xam nga nooy def bàyyi sa waa ji rek ma defal ma bu ko defee nga moom àll bi fu la neex mën déeru ndax bu na ko bismillah mu daal di faat nagu weex dem ba xiif nag waax wut ndax bu xaw mi ne ko sa waay daal coono jëru keroog ba nga mbokk mu ñuul nga ma reyoon keroog mën ngaa def loola nekk. ko mën a déggee mooy ku seetaan ñu ko seetaan ku seetaan sa bopp day yàq di seetaan doo bàyyi faal maa ngi ci bàyyi tax loolu seen màndu mooy ki ko jëf ba mu koy koo te bañ koy gërëm woo ko te mënoo yàq nga waaye léegi bu fekkee ne bu nit bëggee yàq mbokk ci yow lay jaare la sa waa ji de moom yëngati moom nangama nga ne ko lu mu doon mu natt li rek yàggal nga ko moo ne am na loo ci xamul ba gëmoo ko kooku dëgg ni muy jaaree ak moom moo tax damay wax ne même ñii ñuy tudde ay kilifa. ñu bokk ci yoon wi te buñ toogee di wax di xas yoon wi loolu du defal sa bopp ndax toog ci car di ko góor yaay daal. yoon wi am na ci lu mën a luñ mën a waxtaanee ci biiru saal am luñ mën a waxtaanee ci biiru néeg am luñ mën a waxtaanee ci piñ mais média yëpp wër ngay xas say bopp naan diw normal dina sëriñ si mel nangam mooy yow doomu sëriñ noo bëgg a gëmee say bopp xamee di a sëpp mënoo fexe ba dund te yàq nga say bopp soo diggante say bopp yàqu sëñ Tuubaa nee ay bokk nañ bokk luñ am bokk yéene bokk pas-pas bu amee rek damay wax ne yoon wi àndu Cheikh yi Fall Baye Fall yi fi ne yoon wi li gaa yi di bari lu ñuy mën a tooñ tooñ fu ne ñu laal fa ñu ngi wuy Baye Fall foo jàpp ne dugg ñu fa rek ngi fiy dugg bàyyi leen sëriñ si ngeen di teg ci kaw yonent be ab sëriñ kenn du ko kër bi yëpp la pelaat yooyu yëpp ay menace la addiya corruption la ay menace la waaye Baye Fall nanga ku ne da koy wuy xam nga lu ko waral mooy ànd Baye Fall ci sax ci ndigal ci luñ leen sax ñu maasal ñu ragal ku ca bokkul bu ca am bunt bu mu jaar ba di ko te seytaane yi dañoo bari. te lamb leen addee Cheikh Ibrahima. yàqkat yi ñaar ñu bokk ndey ak baay ñeme nañoo tam kenn ñaar ñu bokk ndey ak baay waxuma ñaar ñu bokk baay ñaar ñu bokk ndey ak baay ñeme nañoo tam kenn te yàlla du tax yonent bi du tax sëñ Tuubaa du tax Cheikh Ibrahima Fall du tax adduna doo ngay tax. fi ne boo amee xaalis boo amul jumbal dara boo jubóog say bopp te la lay yàqal sa diggante say bopp ci yow lay bàyyi. bu gaa yi ñaan loolu la ñuy ñaan ñaanal la nga nga bokk ak ñu ndey ak bàyyi ñu ko tax a mel nii mu mel mooy bàyyi ci boppam la ko fay te léegi lu muy waral mooy bu bëggee mu yewi ko rek ne nga nga yewi wóor ab jotaay di yàq saytaane yi bari yàqkat yi bari léegi kenn ku ne bu ñu la loxalee dara wala li may jox rajo ba jox télé la loxal fa nga koy feeñal te Serigne Touba du noonu kon nii nekkee genn kilifa la ma si wax ak moom Serigne Touba la Serigne Touba moo di bàyyi mu ne ma yoon wi daal buñ bëggee mu tege ci yoon nañ ko delloo ci Cheikh Al Khadim dëkk dama jox ko Baye Fall noonu la ma ko waxee Serigne Touba la Serigne Touba du bàyyi mu ne ma nañ ko delloo ci Cheikh Al Khadim dëkk yàlla daal na ñett bii daal buñ ko ñàggee noonu mbàkk yi mbàkk yi doomu ko jëm moom waaye buñ ñag bi ñag ñu muy cheikh rubal ba gërëm kenn mu ñag waaye ñun ñi ko moom noo leen di ñag man nga bu ko xam ne lagi ko liggéeyoo mu liggéeyal la loo laaj mu jox la ko foo ko mu dem boo toogee ci kaw mu toj suuf te mu jógee nga xas yaa ñaagi sam lépp moo tax ne la danaan fànn ci bitti te gis nga mbub bi la war a sol ba ci yow mu xottiku mu ngi ndax boo bàyyee muy dagg di lëmb di xottiku di tilim saa yu mbub mi ak si yow doomu si la soxla kon loolu mooy Cheikh Ibra Fall ànd gii mbooloo mi ànd yàlla léegi Cheikh Ibra Fall téye boppam jàppal leen boppam. Ah. Cheikh Ibra Fall daal mooy xorom ci aw ma loolu nag ku musuloo ko la wax naa ne boo leen sëriñ jéeg a sëriñ da ngay soog ah. ñax toog loolu seetlu rek. doon boo déggee Cheikh Fall ku wéet ngay doon ku wéet fii nag ku gaa yiy wër rek ku gaa yiy wër mbooloo mi dina topp ngay sax xorom ñu di la tudd yaa ngi tudd Cheikh Fall yaa ngi laal Cheikh Fall waaye ku ko bett ko bett loolu mënta ñàkk ndax nit mënta xàll dara ba nekk ci jaay yi ba noppi bëgg na ne mot de passe bii nga xam ne daal ku bëgg a dugg ci site bi ci mot de passe bi du ma ci jaar mot de passe bi nag boo ci jël boo composé incorrect la lan mooy mot de passe bi ñu ne la Cheikh Fall yàlla Fall daal mooy mboolu papillon bi kenn mënut a yegg seen te jaaroo ko ca dugg. boo nee dama ko fi jéggi nag da ngay war a waraan ba digg ñu école nga war a waraan gis fi ñu nag mboolu pass bi bokkul fekk lan mooy mboolu pass bi kon cee ñëw. kon loolu mooy li war te yàqkat yi li mu ju li ñu mujj a génne bu yàggul moom. jéem a yàq ci yoon bi ma loolu lan la ñuy def dem nañ ba ku sant sant wu mag bi sant wu baax bi ah bu ñu tuddee seen tubaab nga kennal seen tubaab wala bu ñu tuddee seen tubaab benn seen tubaab wala nangam ngay contexte di bañ bu tudd seen tubaab bu ñu nee nangam nga ne bokkaale la nangam nangam te ku jox addiya la jël yori tool ñu dina la liggéeyal te bu yow de moo moo moo moo dara teel a ko téere sa bakkan fi nga judd te bu ne lañ ko kennal nga la yëgoo ku wax wedd ku wax yàq te financement dama la ko yóbbu fexe ba logal la dara na la daal na la fexe ba mën a yàq ay waa ji ngor moo ne ab 4-4 wala jàkka ju tabax wala taxee rek sa tubaab nit am 4-4 ak jàkka ju tabax ak i kër ba noppi amee ko suñu amee ko suñu tubaab xanaa boo jaaral ci yoonu ji di koor bi seen kër yooyu bàyyi fa ay tabax. loolu du financement bi kooku xidma la aw ñàkk ko génne léegi yéen sëñ Bamba ca la bàyyee ko boo jaaree te keneen boo jaaree te keneen boo jaaree te keneen gars yi nag di ruur léegi dem nañ ba am complexe boobu murit buy nuyoo te doo sujoo na jot joxe sa di gësam dar sa loxo sa gën a fa taxaare kan la leer boo xam ne boo liggéey loo xam ne kuy kilifa la loolu la mu Cheikh Ibrahima doon bañ danga bëgg ku jiitu jiitu ku xeeb sa kilifa kenn du ko nopp waaye yëngu sa loola dañ caa boole xam nañ ne bu mbooloo amee ak ànd am duñ am liñ bëgg ñu ne dañ fexe ba tàggale leen rek tàggale gi mooy dañ jël kii jënd ko ci jël kii jënd ko ci jël kii jënd ko ci. seen i tubaab nag bu jamono jaxasoo daal dégg naa leen yii rek. da ngay fexe bay noppi tey jekki tey liggéey tey jaamu yàlla loolu it amul doy de. boole noppi ak liggéey ak jaamu yàlla ak loo amul doy loolu suñu bàyyi ànd ko te du teggin damay wax ne ñàkk teggin ak ñàkk worma ak ñàkk xam-xam mooy bëgg a ginnaawale lenn ci jënd Cheikh Ibrahima Fall ak wax mënoo raw seen fàll ci xam-xam te kat. yaakaar naa ku gëstu dara dana xam ne keroog bi mag ñi dajee boobu sëñ Touba 1927 sëñ Touba ñibbi si Touba adduna lëndëm ñii jël seen benn ba dar ko wax ne ku mu jaral xool ñaar nekkatu fi ñii di daan kii teen ñii toog fañ toog karafulaay ñii paralysé ñu ne sëñ Touba nekkatu fi ba ñuy wax Cheikh Ibra Fall waneeru yoon bala sëñ Bambay waajal dayee tax kon xam nga ne wane na yoon waneeru Cheikh Ibrahima Fall waneelu yoon te boobu sëñ Tuubaa lépp fi ci zaaxi Cheikh Ibrahima Fall ne waneelu yoon mënoo am xam-xam ba raw Cheikh Moustapha xam-xam ba def Cheikh Mamadou Fadl te doy na ci mandargal Cheikh Ibra Fall te nit ñi war di ci jàngal mooy jumaa ji gën a rëy mooy jumaay Touba sooroon ba ci ëpp la tudde la fa léegi boo ñëwee wax jumaa ji du ko moom ñu ne ki dàq julli julli ci géej gi julli ci montagne yi julli ci xur yi julli ci biir noonam moo ko moom ñu ne est-ce que yi ginnaaw sooroon bi rek ñu ne ko dawul julli dawul woor moom lañ ko tuddee yow lu tax mu ne ngir ku bëgg a jariñu ci kii tëdd fii da ngay def ni ku julli sooroon bi daan def te mu ngi raw si dolli ci xam-xam Cheikh Mamadou Fadal mu demee ba wax ne ñaar laay roy muy muñu suuf ak teel yu bay Cheikh Moussa sëñ Badji kon ku ñuy teel bi Cheikh Moussa teel bi ko ba te muy ba tey moo leen di duggee ba tey moo leen di duggee la ñu bëri xew gis nga gaynde gaynde ku mës a buub sa toolu bàyyi sa bàyyi mooyee. ak gaynde ku mas ne gaynde gaa nga tool bàyyi jiw booba tool kenn du ko jaar di ko waaye bañ tàmbalee jël gaynde di ko dugal ci parc di fay 300 di ko xool la gaynde ñàkk maanaam gone yi ñoo ko seetaan di ko xool kon mbay melaw wu nit di xool ci gaynde ak dox yi moom tey jaar loolu ko indi léegi nag bu ñu demee ba ak taalibe bi ko xam ne dañ koy seet nañ koy organiser diko kap kapal lu ko tek ci yoon ak daanu kate ak daanu kate nim nexe di bamba di ah lu nuru dal ak murid nim nexe legi service la lañuy jàng neen service civilisé murid bo xamne dal nim ko sentiré rek lay doon reuy ga wuyo sa sam sori sax di mu na wa fala um nak dal wala fal ya rab lo da neex di liggéey di doxe takku laxasaay ni ca xidma ba loolu mooy jëriñ mooy waaye bu ñu jàppee damay ne wax ju ak i taaba romb ak i tukki yu rëy ak doom yu rëy taxul jumaa ji ji bu ñu def di taaba romb rek toog di ah ba ak ah naan nga wan naan nga ne sa doom bu ma ne xool ma sa ëpp jumaa ji liggéeyee ko tax a sotti ay taaba romb sottal jumaa ji yéen bi daal nangam du yoon rek dañ koo war a nii te indi jëlee koo daa daara joo moomal sa bopp amul mun na ko solo ko doo xam te fu mu wax naan non da nga war a mobiliser wu organisation yoon wi seet yoon mu ko teg te yow dafa koo jumaa dafa koo jàkka yëngal yow kër sa pincu maam mënoo ba def na tabaroon bi gisee ndax jumaa bi sox màggal gi ñii ñuy tabaroon da nga coow tabaroon daa tax màggal gi sox ay milliards ak millions da di caxal xit maa koy joxe nu moo liggéey wax kese se yoon bi sot moo tax seera fa noonu te dañuy fay wax day jóg dama wax ne xam-xam bu àndut ak jëf mooy comptabilité jàngoo ñu xel si yow ñett amul njëriñ fël bi jaayu nagam ñëw dénk la ko moo la gën a man na ñeer xam naa milliard xam naa million xam naa téeméeri junni téeméeri junni plus téeméeri junni mooy naka féeroon ñàkk na ma ne loolu amul solo xam-xam boo ko jëfee amul solo Cheikh Ibrahima Fall nee na woon ku jàng ba yëwi la te li yàlla digle du ko def li mu tere du ko bàyyi fu mu raw dina kenn faat mu ne wax ku déglu baax na te du def li yàlla tere la mu digle na nga ca bu ko raw dina kenn faat kon loolu mooy xam-xam loolu mooy jëf loolu mooy melo loolu mooy dox nekk kenn ku nekk jaar ci diggante ba borom diggante ba seen bopp jéem a rafetal relation yi te bañ ci dem iñaan am solo gis nga koo dégg muy wax lu solo te yoon bi dajee amul këram rek waaye bu ñu fi ñëwee ceex gi ñëw daara di riir ndongo yi ñëw yëf yi di jëm si doo dëgg dara si yoon bi waaye ki ñëw dara lu may sànni xeet ah sa waay nanga nanga nanga bëriwul rek kon foofu la Cheikh Ibrahima nekkoon defal diggante ma mag ñi defal diggante ma taxawaay ci ay jëf yu sell kon noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm ngi leen di jéggalu it bu baax a baax ci wax ji xaj na kilifa yi topp suñu ginnaaw di borom bi xam-xam bu ñu ñëwee danañ ci leeral leneen lu ëpp li ñu ci ak bëgg daal wóor na ma ne am na moom man xamal naa sa bopp ne ku bëgg Cheikh Ibrahima Fall loolu moom nu ma ko mën di laaj kenn baaxoon sa bopp.

du ñàkk ñu yëkkati ko ngir Cheikh Ibra Fall bi ñuy jóg sax amuñu fu jaar waaye bëgg ji moo yëkkati ngir Cheikh Ibra Fall ndax Cheikh Ibra Fall moo xam kooku te yaa koy wax bu baax a baax.